sëriñ Mbàkke yu fay di jëwriñu sëriñ bi ci Ndakaaru sëriñ baa ngi koy sant bu baax di ko gërëm cant gi ngërëm li nag mooy taxawaayam ndax lii mu fi indi tey mooy li ci gën a tuuti ndax joxe na jëmmam joxe alalam joxe xalaatam joxe dooleem ba ma tudd dara ci boppam te loolu man mën naa mën naa koo seere kon sëriñ baa ngi koy sant cant goo am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu waaye na xam na ki muy jëfal ndax jëfal Sëriñ Tuubaa moom jëfal sa bopp rek la waaye nag jàmbaar bu jëfee ba kenn mënu ko ca li muy def warees na ko kañ sant ko kon sëriñ bi nga koy sant di ko gërëm cant gépp na mu dolli ko ñaan ñaan leen mooy la mu ko seeral loolu ne ko li ngay wut am nga ko mooy ngërëm Sëriñ Tuubaa ngërëm Sëriñ Tuubaa loolu mu ko seeral loolu nag nee na mi ngi ko ñaan ngërëm la sax ci moom dotti ko ci moom ba àgg ci ak njabootam ndax tey jii kat xam ngeen ne bis bii waa Ndakaar la ko sëriñ bi doon te mooy seen jëwriñ ngir rek am yërmaande ci ñoom ngir xam ne bëtu yërmaande bu leen xoole wala mu wàcc ci suuf si rek danañ am jàmm danañ am danañ am danañ am xéewal moo tax sëriñ bi ñëw kon nag bu ñëwee mu jëf lam lu rëy jëf ci ngan gi te ngan gi kat xam ngeen ne lañ def ci togg yi rek ëpp na juróom-ñaar fukki million te nee na sëriñ bi ay téeméer nag des nañu kon mbirum Sëriñ Tuubaa moo demee noonu li nga xam ne taalibe yi ko doon barkeeloo nag lépp dem na ca moom ci boppam nag moo ne la Sëriñ Abdou Lahad daa wax ne taalibe bu ñu jox sëriñ bu ñu jox addiya te doo jox addiya daa mel ne ku yoroo waxandew gaalam ku fóot ay yéreem ba mu jekk rek mun la dencal la bu ñu demee bàgg ci bisuwaay taay ku ne laajub yéreem nga jox ko doo am loo sol kon moo xam ne di jëwriñ ñi nit ñi itam war ngaa génne ci sa ñaqu bopp loo joxe. Mhm. moo tax mooy tey day sant sëriñ bi yëkkati lu tolloog milliard jox ko sëriñ Touba. addiyee milliard nag sëriñ Touba dégg na ko ba tey waaye yaakaar naa sëriñ Touba rek ko ba noppi ko xeeb kon dañ koy ñaanal dërëm bu ci ne yàlla sopplu ko ay yu bari te suñu noonu lay faye man jaa bil hasanati falahu ashru man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa bislaha kon nag lii. aw soññ la ci képp koo xam ne yàlla defal na la wërsëg nga xam ne wërsëg kat ku ko yàlla defal jox la xolum nga def ko ci baax war ngaa sant yàlla bu baax suñ boobu nag xam na ne diisati ci nit ñi moo tax mu ne wala yasalkum amwaalakum yasalkumuha fa yuhfikum tabxalu wa yuxrij adxaanakum xam na ne dafa taq ci xolu borom waaye Sëriñ Tuubaa nag lu ko népp lu ko lépp lu ko nit di jox ndax soxlawut alal ji ci yàlla la koy defal moo tax nit ñi joxe seen alal gën gën a leen ñu denc ko waxoon na ne nag alalee dongee deen xool bu baax fi ngeen ko tàbbal ndax nit fu alalam tàbbi ab xolam topp ko kon nag bu ngeen gisee ñi fi nekkee Sëriñ Tuubaa lu nit joxe xeeb ko lépp dafa delluwaat ci yàlla kon nag sëriñ bi ko sant di ko gërëm di ko ñaanal mucc ak xéewal ak barke te lii mu jëf kat yàgg na koo jëf ndax man li ma xam mu def ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi ci jumaa ji waxuma ne xew-xew yi mën na ñeent ci wala mu ci lu kon lii day lu feeñ rek waaye li mu ci def ëpp na loolu kon nag loolu Sëñ Tuubaa rek la ko yàlla defal.